asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp di nuyu it mbokk yi nga xam te ni ñooy faral di teewlu jotaay bi ci ayu bis yu nekk muy sun jotaayug yóbbulu ndaw ñi muy jotaayab xam-xam waaye di jotaayab fàttalikonte ci diine ji nga xam ni moom lañu sunu boroom subhaanahu tabaraka wa taala dénk muy diine islaam waaye di ñaan boroom bi subhaanahu tabaraka wa taala ñu jéggal ñu sunuy bàkkaar yu njëkk ak yu mujj te defal ñu yërmandeem ju matale jépp kon mu mel ni rek dañuy dellusiwaat ci suñu jotaay yóbbulum ndaw ñi suñu bàyyee xel nag suñu jotaay bi mujj ñi ngi doon jàngale lan mooy deretu wasin ak la aju ci moom ci ginnaaw bu ko jigéen ji gisee nan lay def ba toppatoo wàllu setam ak wàllu laabam ci digganteem ak boroomam kon suñ bindu tey mi ngi tàmbalee ci faslun lii ab dog la wala ab teqale la fi maxrifatil awxaati ci xamle waxtu ya alwaqtu waxtu yan xasimu dana seddalikoo lil muxtaari ñeel wu tànn wala daroori wala wu ñor wuy lor la dal axbaari fa fóore kon bu dee ci ngiru imaam Malik mi ngi jàngale waxtu julli yi ginnaaw boo xamee ne suñ boroom subhaanahu tabaraka wa taala sant na jullit ñëpp julli dénk leen ko kon nag jaadu na jullit bu nekk xam julli mi muy def fan la aw waxtoom tàmbali mooy waxtu wi nga xam te ni mooy waxtu wi gën mooy moxtaar ak waxtu woo xamee ne boo demee ba am lool woo xam te ni ngànt la fan la daroor yi tàmbalee ak fan la yam moo tax ñu séddale waxtu wi ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy xaajul moxtaar xaaju ñaari bi mooy xaaju daroor yi mu bëgg koo leeral nag ci julli gu nekk waxtam fa muy tàmbalee ak fa muy yem moxtaaram fa muy ak fa muy yem ak daruri mu ne al muxtaaru zuhri muxtaaru tisbaar kon mi ngi ko tàmbalee ci julli tisbaar min zawali samsi mi ngi tàmbalee fa rëccu jant ba ilaa axiril xaamati ñeel mujjug xaam mooy mujjug taxawaay ba duna lapsin ci lënt wala xasru tàkkusaan muxtaarun muxtaaram laha ñel ko min haa jóge ci taxawaay ba ilaa waxtil isfiraaril ardi jëm ci waxtu gelu suuf sa lal yuuxi déet muy so oqilaa xelul amma daruri yu ndaal daruri yi nag li haasayni ñel na ñaar yi mooy tisbaar ak tàkkusaan maxaa mboolem seen fale xurubil xoyu bi ñeel na sow jant ba in daman faka nga xam te ni wattu na kon mu mel ni muxtaarum tisbaar mi ngi tàmbalee fa fàddug sax eh, ca rëccu jant ba mooy boo xamee dem na ba nga xam jant bi cenk na nga xam ne naaj waa ngi tàng jër nga xool ne boo xoolee nit ki ab takkandiram mi ngi jembat ni ko jëm saw bu demee ba nga xam te ni nag wëlbatiku na ba mel na lu jeex wala mu des tuuti ba nga xam ne ker gi tuutee ciy feeñ mel na lu wëlbatiku jëm côté nday joor ba bu takk ndeeram demee ba tolloo ak jëmmam te te te ker ga nga xam te ni moo desam ci takk ndeer ba bokku ci kon boobaa dafay xam ne muxtaaram tisbaar foofu la yam kon moxtaaram tisbaar mu ngi tàmbalee ci nit ki bu taxawee ci naaj wi jamono ji nga xam ni jant bi rëcc na nga xam ne fa mu toll ci asamaan si nit ki bu xoolee ab takk ndeeram day jeex tàkk wala mu tolloo tuuti ci moom ci jati tànkam tuuti tuuti ci moom kon foofu la tisbaar tàmbalee kon foofu lay tàmbalee daal di jëm nag bu nit ki demee ba ab takk ndeeram wëlbatiku dem ba tolloo ak jëmm te boolewu ca lam fekkan ca mu desan ca takk ndeer ba kon bu boobaa bu demee ba tolloog jëmmam ci lay xamee ne kon moxtaarum tisbaar foofu la yam moxtaarum tisbaar kon foofu lay yam moxtaarum tisbaar bu tàm bu yamee foofu nag kon daruur yi tisbaar fa lay tàmbalee daruur yi tisbaar fa lay tàmbalee moxtaar ak daruur yi nag bu fekkee moxtaar mooy waxtu wiñ tànn nga xam ne moom mooy waxtu wi gën ci nga julli bu weesoo moxtaan nag daruri yi dugg mooy waxtu yi nga xam te nii nag bu dee da ngaa am ngànt ci nga war a julli bu dee amoo ngant xaar ba moxtaan ma jeex daruri yi dugg si boobaa da am bàkkaar bu rëy kon loolu moo tax am solo la lu jar a bàyyi xel kon moxtaarum tisbaar bu yamee foofu daruri yam mi ngi tàmbali foofu waaye fa fam yam falam moxtaaram tàkkusaan tàmbali kon moxtaaram tisbaar fa muy jeexee muxtaaram tàkkusaan fa lay tàmbalee dem nag ba nga xamante ni mu ngi tàmbalee ci waxtul isfar mooy waxtu gelu boo xamee dem nga ba nga xam xamante ni buñ julee tàkkusaan ba pare yaa ngi gis jant bi tàmbalee andi ay xonq xonq mel na luy bëgg timis kon nag foofu la muxtaaram tàkkusaan di yem ñoom ñaan ak seen daru yi ñooy ànd dem ba yam ca bu timis jotee tisbaar ak taksaan seen daruur yi mi ngi tàmbalee fa mu tàmbalee ku nekk waaye ma ngay jeexee fa timis jotee kon boo xoolee boo demal ba timis di bëgg a jot nga man faa julli lu mat ñeenti rakka kon bu boobaa loolu day dugg ci daruur yi tàkkusaan kon daruur yi tisbaar day jeex ndax moom moo njëkkan kon day mel ni kon ci tàkkusaan nga am daruur yi ñeenti rakka mu ne wal maxribu timis muxtaaru ha muxtaaram xul waxal xadru kem la nga xam te ni fii nekk na ci moom tu salla def na julli baxda sartin ginnaaw sart ya xoole ma gog xameef na ko ka sitri xawrati ñi ngi suturaal sa awra wa tuxri xabasi ak laabu xabas xablal azayni azanayni njëkki ñaari baat seede mooy noddu ak liqaam wa tuxalil xadas ak laabug xadas bu dee timis nag kon ginnaaw bu jant bi soowee fa la timis tàmbalee wala muxtaaram timis mooy liñ tànn ci timis fan la jëm fan la yem nag moom muxtaaram dafa gàtt fi yam yem dañ koo tënk ci ne nit ki bu laabee de maam dem ba defal ak laabam maam mu jàpp suturaal awraam sol yére yu jot yére yi amul sobe barab bi muy jullee tamit amul sobe mu nodd mu lekk mu nodd liqaam kàbbar julli lu tolloog ñetti raaka bu sëlmalee ba def ay lawaatam maanaam ay ñaaram yu gàtt yooyu ñuy def ci ginnaaw sëlmal bu jógee rek kon day mel ni moxtaaram timis foofu la yam kon loolu diggante boobu mooy moxtaaru timis wax nañ nag ci benn tëgg ne fad fàddug safax buñ ko waxee nag mooy ngir mu gën a yomb mooy boo demee ba nga xam timis jot na nga xam ne asamaan day xonq mel ni naaju day tàmbalee dugg foofu timis bu jotee nga xam ne jant bi sona fan la moxtaaram timis yam bu demee ba nga xam ne nii xonq-xonq yooyu raaf na nga xam dem na ba tàmbalee lëndëm nga xam ne xonq-xonq yi raaf na ba jeex boobaa falam moxtaram timis yam mooy fàddu safax mu ne summal xisaa u topp gee min maqi bi safaxi mu ngi tàmbalee ca fàddu safax ga moxtaaruha aw moxtaaram li sulusi layli ñeel sulusu guddi ga it taxi na ragal yàlla bu dee sulus nag mooy boo xaajee guddi ga ñetti xaaj xaaj bu njëkk ba benn xaaj ba mooy sulus mu ne suma daruur yi topp daruur yi al isa gee wal maqrib ak timis inchab na nga askane la tulooxe saadixil fajri jëm ci dëggug fajar ga waaye su ko nii su man sub topp nga askana daruur yi isa daruur yi gee wal maqrib ak timis la tulooxe saadixil fajri mi ngi jëm ci dëggug fajar ga loolu moo tax mu ne bu dee gee fan la muxtaaram tàmbalee ma nga tàmbalee fa muxtaaram timis yam kon foofu muxtaaram timis yam mooy fàddu safar la fa la muxtaaram gee tàmbalee muxtaaram gee rek mi ngi yam ci ginnaaw boo xamee ne xaaj nga guddi gi ñetti xaaj maanaam bu timis jotee bu jullee timis na pare nga xool ko ak diggante bi ñuy jullee fajar nga xaaj ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk ba bu demee ba jeex falan moxtaaram gee yam daru yi gee nag ak daru yi timis dañuy ànd jëm ci dëggug fajar ga mooy dañuy jëm ba ci bu fajar ga jotee kon ñoom ci ñoom ñaar seen daruur yi mi ngi jëm ci bu fajar jotee bu fajar jotee daal xala seen daruur yi mooy timis ak gee di yam kon ñoom ñaar ñooy bokk seen daruur yi comme niñ ko waxee woon nag te diggante tisbaar ak taakusaan bu demee ba nga xamee ne julli timis jot na nga xam ne julli ñeenti rakk rek ci des kon boobaa waxoon nañ ne tàkkusaan moo koy jël kon ñoom ñaari timis ak bi ñu demee ba nga xam te ni julli ñeenti rakk rek a fi xaj kon boobaa gee moo koy jël kon loolu mooy waxtu tisbaar ak tàkkusaan ak timis ak gee bu nekk fa waxtoom tàmbale ak fa waxtoom yam kon xam naa dañuy yamale fii suñu jotaay di tàggatoo ak mbokk jullit yëpp di ñaan yàlla nañ suñu moom defal dégg ak topp kon jotaay bii di ñëw ñu wax ci julik suba kon moo ci des jullik suba ak ay warteefam kon yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp yàlla nañ suñu borom suturaal sellal suñuy xal defal ñu ñuy am xol yu yaatu ci leerug yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon ñu leen jox ji beneen jotaay lu fi jub ci yàlla borom bi la lu ci jëm yu xeeb yi la in uridu ilal islaaha mastataxtu ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu alaykum wa wa barakatu